mbokk yi dañuy daw ci dabut ci temps bi dem seeti ki nga xam ne moom mooy benn Youssouf yëngal na kaw te wax na wax ju rëy nag kan mooy benn Youssouf ak lu tax benn Youssouf ne moom <laughs> euh, benn Youssouf non Youssouf benn Zulum euh, Youssouf benn Zulum daal euh, moo neex nee na la nee na la 24 février 2019 ñoom dañuy jëlee Macky Sall fii yóbbu ko palais waaye ñoom parce que le 24 février 2018 <laughs> nañ def seen conférence ñu dem xool nag ndax moom li wax. yombee wara noonu lay defee ñu xeeli seeti ki nga xam ne moom mooy benn Youssouf. Youssouf jërëjëf jërëjëf merci merci dama ne balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare euh, bu ñu waxee balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk ba pare c'est parce que bu fekkee ne da ngay def politique il faut nga nekk koo xam ne da nga social avant ngay def politique président Macky Sall ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci partem te bëgg ko xam nañ ne affaire bi nekkul loo xam ne da ngay ñëw naan rek mu jàll c'est pas facile kenn ku nekk bu liggéeyee président Macky Sall yow jàppal na sa bopp yow yaay président Macky Sall di def ay action sociale amuñu benn loo xam ne daf ñu tax ñu tiit ba rendez-vous 24 février 2019 du ñu yóbbu Macky Sall ca palais euh, mouvement bi nga xam ne mooy nouvelle vision Kaolack nga xam ne man maa ko taxawal et je pense que ne li tax ma taxawal ko euh, ñu bëri sax dañuy gis benn moi euh, benn Youssouf naan benn Youssouf euh, benn Zulum naan benn Zulum ak lan lay def suñu dëkk mais dama ne sant nekkul ci dëkk Saalum salum la kenn gënumaa gën gënumaa lakk dëkk bi di sénégalais juddoo ci réew mi màggee ci réew mi dama ne président Macky Sall ñoo koy boot roganti ko yóbbu ko palais le 24 ñun di fi nekk di tontanteeg ñi nga xam ne dañuy wër ci dëkk yi di yàq politique Macky Sall ñun dañu ñëw taxaw pour indivision bu leer ci Kaolack ba pare soo koy mën a tasaare ci biir Sénégal euh, di solu solu yu correct di wax ay wax yu correct di communiquer ak communication yu correct parce que le président Macky Sall lu correct la bëgg Kaolack nouvelle vision mooy fexe ba Kaolack waa yi gis seen bopp ci politique du président Macky Sall lu tax ma naw le monsieur le ministre Youssou Ndour parce que dafa communiquer ci wayam communication boo xam ne opposition ak gouvernement war nañ cee jàngat adduna boo ci nekkee da ngay fexe ba li ngay jëf mu nekk lu fashion li ngay wax mu nekk lu fashion ni ngay doxee mu nekk lu fashion su ko defee ñi nga xam ne boo kook ñoom gis-gis seen xol di dagg te duñ ci mën dara saalum saalum yi dañuy faral di wax ne waxu mag bu ne ci yoon dëgg jalu muus la boo fa waxee fekk fa dara waaye xam ngeen ne rendez bi nga xam ne moom la ñu jox sénégalais yi le 24 incha allah bu soobee yàlla février 2019 dama ne ku ma gis yaakaar ne mënumaa boot nit yaa ngi nax sa bopp ndax ñu dañuy boot di rogganti attan nañu président Macky Sall te li nga xam ne moom la ñu bëggal président Macky Sall mooy fexe ba li nga xam ne moom la liggéey ci plan émergence ak li mu liggéey ci piment li mu liggéey ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, TCE ah. mooy fexe ba visibilité boobu président teg ci bëtam ak eh, ah. sénégalais yi booy wax ak ñoom dangay ngay wax ak ñoom ci li nga xam ne ñoom nga leen fekk boo leen di dimbali da leen di dimbali ci li nga xam ne mooy seen ay jafe-jafe parce que munoo ñoo soxla nit ñi te nit ñi buñ la soxlaa nga yaakaar na ay 1000 francs wala sandwich boo leen jëlee man politique boobu dama ko contre oppose opposition bi nag ñu ngay commencé naan damay joxe sandwich ana ñu ma fi jox sandwich est-ce que am na fi ana ñu ma fi jox 5000 est-ce que am na fi danga ma wuyu si ci seen soxla yi nga xam ne dama cee taxaw kon na ko président Macky Sall day taxawee pour soxla sénégalais ñëw est-ce que xool ngeen ma ci catu tànk ba ci kaw est-ce que gis ngeen ma sol solen boo xam ne àndul est-ce que gis ngeen sama biir wax ma saaga est-ce que gis ngeen sama biir communication ma dérapé xasuma opposition ŋàññuma kenn wax ju rafet ak bu tey laa séq ak doomu aadama yi waaye dama ne ku gis nen ne nena ngi sama mbagg bi ak sama ndodd gi ak sama ndigg ñeme naa ci rogganti président Macky Sall daa di koy rogganti ba mu roggantiku yeew ko ba mu dëkkër daa dee fas ci kaw fas ci digg bi jël ay tànkam ko yóbbu ko fi nga xam ne mooy pale kon maa tey boot maa rogganti pale laa ko jëme maa